ngir yaatal liggéeyab Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xarim Rasoul jaarale ko ci Touba ci kanam tax na nag ci gaaw bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai atum 2023 dëkk bi di Cees dalal yenn ci jëwri yi ngànk liggéey bu am solo bile ci njiitu commission massification. mu nekk journée boo xam ne Touba ca kanam da si rassemblé mbooleem coordinateur Touba kanam yi ne si biir région yëpp ka fukki région ñeent yëpp ak 46 département yi. ñu dajaloo si benn réseau boo xam ne dañ fay waxtaanewaat liggéeyu Touba ca kanam bi tool waay bi si ñaari at yi ñu génn ak soññeentewaat murid yi ñu gën a góorgóorluwaat ci liggéey bi ndax umpale woon Touba ca kanam bi ko sëriñ bi sos ba léegi li mu am nag mooy dajal 2000 yoo xam ne dana jaayante ak suñu Touba weer wu nekk na jox ñaar téeméer première édition nekk ni 2023 ñu defe ko fii si Kees liggéey bu am solo bi lëkkale woon mbooleem gox ak gox-goxaat yi nekkoon ci biir diwaanu Thiès ñu ngi ko amal ginnaaw liggéey bu am solo boo xam ne ni amal nañ ko jiitu bis bilee waagu massification ñëwee ci njiitu suñu Bara Mbacké Xelcom am ak ñun ci région bi lu mat fukki fan ak nangam euh, yaakaar naa ni la 15 la 15 te maagi suñu ablaat ba suba ga ba léegi ñu ngi ci région bi ñii nekk Mbuur ñii nekk Xombal ñii nekk Sow jant ñii nekk Tundu Jandeer ñii nekk ci biir dëkk bi ñii nekk Tiwaawan ba Ngaay di def ay collecte di dajale ay addiya di ko jëmale ci dëkk bu sell boobu nga xam mooy Touba. ci teewaayu ndawal sëriñ Saliou Touré mi nekk jëwriñi Cheikh Mouhamadul Mountakha ci région de Thiès ginnaaw ab barkeloom soññ na nag mboolem taalibe yi rawatina tundu ak li ko wër ngir ñu gën a sóob seen loxo ci tubaa ci kanam. Serigne Cheikh nee wóor na ko ni lépp li fi waay def lu nekk li nga xam ne noonu la yoonu murid baaxoo mooy laxasaayu si yenn kàddu lu fi waay def lu nekk rek Serigne Saliou kon li nag nekk ñaareelu ndaje moo xam ne nii Touba ca kanam dana ko amal ñaari at yu nekk ngir yaatal liggéeyab sëriñ bi fii ci cees nag occasion la woon nag ci jëwriñ ñi jiite Touba ca kanam ñu biral mboolem jëf yi nga xam ne ni Touba ca kanam amal na ko ci dëkk bu tedd bii Touba bam sosoo ak léegi. ndaje mi nag ni ñu ko amale fii ci réew mi ci région de Thiès noonu lañ ko daal di yaatale ci bitim réew ngir jëme Touba ca kanam. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abone Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.